asalaamaaleykum mbokki jiwaanu Tooki Gaar asalaamaaleykum mbokki département wu jurbal mbokki région wu jurbal ak mbokki Sénégal yépp man monsieur le maire de Tooki Gaar docteur musa caw maa ñëw tey di waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moom la ñu dëjmal ginnaaw bu président de la république jëlee dogal tas li nga xam ne moo di assemblée nationale di e législature bi waaye convoqué ay élections législative le 17 novembre 2024 ñun nag en tant que sénégalais en tant que acteur politique en tant que élu local en tant que ay jeunes yoo xam ne jàng nañ fi ñu war a jànge ba bokk ci ñi am ay lijaase yu kawe waaye fas yéene taxaw laxasaayu liggéeyal seen réew liggéeyal seen gox ñu am ci ay ambition yoo xam ne ambition yooyu lañ leen bëgg a baaxe ginnaaw bi nga xamee ne def nañ sunu jàngat sunu analyse ci législature bi nga xam ne moo fi moom la tas waaye yi ko jiitu ak ci xeetu député yi nga xam ne moom la gis assemblée nationale mu nekk ay député yoo xam ne yenn saay dangay ngay laajte ndax ñi xam na dëgg dëgg dëgg lan mooy rôlu dépité nekkul ci njàng mi nekkul ci xam-xam bi nekkul ci intégrité boo xam ne war nañ ko mën a am ngir xam ne foofu ñu toog muy koy woowee pencum ndaw réew mi kon ay ndawi réew lañ fa war a doon ñu gàll leen nag ay mission bokk na ci mission yooyu mooy bi ci njëkk bépp loi boo xam ne mooy tënk ni penc bi war a doxe mooy tënk naka la ñuy yoree sunu ay ressources mooy tënk li nga xam ne moom mooy jëflante bu nu war a am ak yeneen réew yi su ma ci mënee yi lim loolu kese ñoom di assemblée nationale ñoom ñoo koy wote waaye it bokk na ci mission bi ñu leen sant mooy lii nga xam ne mooy ay moyens lu jëm ci ay koppar ak lu mun di doon yu état war doxal ngir faj jafe-jafe askan bi ngir développer réew mi ñoom it ñooy wote loolu waaye yemuñu ci war ko wote ñoomit ñoo koy càmbar ñoo koy topp ñoo koy leeral ñoo koy saytul askan wi e, loolu nag jàpp nañ ni laajul député yoo xam ne dañuy taxaw ngir par parparloo ngir ne man député wu président de la république la lu mu war a def wala lu mu bëgg a def damay gëmm sumay bët daal di koy woote. laajul tamit nga ne man ànduma ak président de la république lu mu fi indi donte baax na duma ko woote waaye laajul tamit nga taxaw lu gouvernement teg. nga ne dama koy tasaare dama koy yàq looloo tax ñun ci wóolute gi nga xam ne askan bi koo wóolu nañ ñu ko ñu nekk aussi ay jeunes ñu dénk ñu dëkk ñuy doxal ñu gis ne pencum ndaw réew moomu day am nañ fa place am nañ fa wàll ndax loolu nga xam ne mooy mission wu député seetlu nañ càmbar nañ ne warees na ko mën a doxal ci doxin goo xam ne dina méngoo ak na mu ware looloo tax ñu ñëw di leen yëgal suñu candidature bu ko yàlla dogalee le 17 novembre incha allah ngir lan ngir bokk ci ndaw yi nga xam ne ñoo war a toogal réew mi ci assemblée nationale bi ngir lan ngir bokk ci ndaw yi nga xam ne ñooy toogal région ak département wu Diourbel ci assemblée nationale mais nag particulièrement bokk ci ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy toogal euh, ndaw waa réew mi ci assemblée nationale mais aussi toogal fa waa commune de Tokigane loolu nag dafa nekk ambition bu rëy waaye tamit ñu jàpp ne sunu askan ñi nga xam ne ñoo ñu wóolu tey ba dénk seen baat ba dénk dëkk bi ñu yoril ko yoreen boo xam ne jàpp nañ ne méngoo na ak liñ doon xaar si ñun ñu leen ciy tàllal loxo xooluñu kenn fa mu féete xooluñu kenn koo xam ne jàpp nañ ne bokkuñu parti politique wala bokkuñu formation politique déedéet dañu tàllal loxo doomu dëkk bi yépp di ko jiital ci suñuy kilifa kilifa diine kilifa aada waaye yit mboolem ñoo xam ne population bi bu kenn jàpp ne bokkuñu woon parti ba waruñoo jàppale doomu dëkk bi pour mu mën a bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy toog ci péncum ndawu réew kon nag ñu ngi leen ciy tàllal seen i loxo di tàllal loxo waa département wu Diourbel di ci tàllal loxo waa région bi di ci tàllal loxo waa Sénégal yépp ak waa diaspora yi fu waaye mën di nekk ñu xam ne dafa jot rupture bi nga xam ne ñu ngi koy woote ñu ngi koy séentu ñu fexe ba jéem a taxawal rupture boobu ci assemblée national soxlaatun ay député ni ma ko waxee yoo xam ne dañuy askanale seen bopp nit waaye duñu askanale seen bopp ñi nga xam ne ñooy askan wi leen tànn soxlaatul ay député yoo xam ne dañu koy jox rek te xamuñu leen xamuñu seen i capacité xamuñu seen xam-xam xamuñu seen probité morale maanaam nit ki ndax jub na wala jubul loolu dafa jot ñu jële ko ci réew mi fekkee ne bëgg nañu réew mi soppeeku dafay laaj ñu soppi d'abord xar kanamu assemblée nationale ndax mooy la représentation nationale. kon nag ñu ngi ciy tàllal loxo ñëpp bàyyiwuñu kenn bu soobee yàlla lépp lu ci war ci dox ci wax ci tàllal loxo ci seeti ñun war a seeti incha allah dinañu ko def ànd ko ak yéen bokk ko ak yéen ba yàlla may ñu ci ndam ñu fas ne taxaw. liggéeyal askan wi ca na ko maam Abdou Aziz Sy yal na yàlla yokki leeram doon waxee député yi bu ñu leen indilee loi ngeen di ko voté na ngeen fexe ba na ngeen xam ne bu ëllëgee da ngeen rendre compte ci kanamu askan bi waaye di ngeen rendre compte ci kanamu sunu borom. loolu nag nekkul responsabilité bu ndaw responsabilité bu rëy la te mesurer nañ ko xam na ne buñ ci àndee ak yéen soobe yàlla mën nañ ci am ndam kon ñu ngi leen di tàllal loxo. di dagaan seeni baat di dagaan seen i xalaat pour incha allah suñ borom dimbali ñu kàttanal ñu ba mission bi ñu tàmbalee ñu mën ko eggale waaye it assemblée nationale war a doon pàcc bu am solo ci li nga xam ne bëgg nañ ko liggéey réew mi asalaamualeykum wa rahmatullah